wax nga ko muy les euh, recours yi ñu yi ñu déposé et je pense que doyen Albert l'a dit tout à l'heure le recours il est permis à <coughs> tous les candidats maintenant on dans une situation d'ambiguïté juridique parce que tey est-ce que ñi nga xam ni dañoo rejeté woon seen parrainage la euh, le conseil constitutionnel les considère comme des candidats ou bien les 21 yi ñu validé rek la ñu considéré comme des candidats étant entendu que la procédure ni ñu ko mënee boobu ba léegi joxaguñu ñi nga xam ne dañoo recalé seeni parrainage la possibilité ñu mën a euh, donc contester euh, li ñu invalider seeni parrainage parce que la notion de candidat à la candidature n'existe pas dans le code électoral or donc boo jëlee les 93 donc 21 yi ils sont déclarés comme étant dans une liste provisoirement provisoire donc de des candidats à la présidence les 93 pouvaient être considérés comme des candidats à la candidature pour le poste de président de la République te conséquence yi génne na benn euh, benn communiqué euh, bërki démb ni tous les recours yi ñu déposé woon avant la date du 12 donc yooyu. c'est donc c'est nul et non avenu parce que c'était pas une période contentieuse effectivement. ils avaient ouvert une période contentieuse entre le 12 et le euh, le 13 et le 14. oui une fois que donc ñoom publier nañu euh, à partir du 12 la liste provisoire donc des candidats qui ont passé le parrainage. Mm-hmm. donc il y a cette ambiguïté là juridique donc qui n'est pas très claire dans les textes yi yi yi organisés. le processus électoral muy benn aspect deuxième aspect donc euh, soxna Maria wax ko léegi ñu war a donc faire le distinguo très net hmm. entre les recours yi porté sur le processus d'invalidation de certains parrainages je pense que c'est man c'est l'objet principal de ma présence ici je ne sais pas si c'est maintenant qu'on les aborde ou si après ak beneen aspect boo xam ne le code électoral daf ko yàgg prévoir ni une fois que tu es candidat dangaa am droit pour contester la candidature de, de des autres concurrents mm-hmm. mooy les 21 yi nekk sur la liste provisoire ku ci nekk am nga droit contester la candidature donc des 20 autres yi nekk sur la liste mm, mu nekk un premier aspect comme match football rek na ngay porté réserve na ngay porté réserve voilà donc donc loolu mën nañ ko woy porté réserve bu ñu ko delloo ci nawetaan chaque candidat am nga droit porté réserve donc sur la candidature de tes concurrents alors loolu dafay nekk un premier aspect donc bi wane une des failles de notre système donc de euh, de validation des parrainages ci conseil la nga xam ne moom mooy rôle am parce que le conseil constitutionnel son premier rôle mooy moom mu étudier l'ensemble des candidatures les neuf papiers yi nga xam ni donc dañ koy jox ba xool bu ci nekk dafa am euh, valable na wala valable neuf yooyu am na si ñaar yoo xam ni ay déclaration sur l'honneur mm-hmm. mooy man docteur Cheikh Dieng candidat à président de la République damay damay bind lettre daf déclaration sur l'honneur mm-hmm. ni man damaa nekk en règle avec le fisc ma fisc benn dërëm man docteur Cheikh Dieng damay bind lettre au conseil constitutionnel ni damay déclarer sur l'honneur ni man sénégalais laa te awma beneen nationalité bu dul nationalité sénégalaise mm-hmm. mais loolu même avant benn candidat di ci porter réserve c'est le rôle du conseil constitutionnel mu vérifier pour tous ceux qui ont déposé une candidature ndax yooy déclaration sur l'honneur dafa correspondre à avec la vérité ou parce que yooyu déclaration sur l'honneur duñ laaj nga accompagner ko ak benn pièce justificative contrairement à ñu bari li ñu doon wax di wax quitus fiscal quitus fiscal kenn laaju ko ci papier yi ñuy déposé président de la République mais par contre conséquence moo am responsabilité man Cheikh Dieng su ma nee je suis en règle ameluma xaalis état bi dërëm moom mu bind fisc mhm. jox ko liste 93 candidats yi mhm. ni ko dans ces 93 candidats est-ce que am na ci kenn ku ci am bor ku ci ameel bor état bi ab dërëm fisc tontu conseil constitutionnel ni ko diw ak diw ak diw ñoo fi amee dërëm à partir de ce moment kon day xam ni diw ak diw ak diw boobu fisc wax ñooñ seen déclaration sur l'honneur dafa faux mm-hmm. par jour la te ñooy ils peuvent être poursuivis en justice mm-hmm. boo defee une déclaration sur l'honneur boo xam ni dafay euh, par la suite bu ñu ko vérifier dafa dañoo rendre compte ni dafa nekkul dëkk